Tangle bégé, moni bégal. numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Votre nouvelle bouteille d'eau de 10 litres au Royal est disponible en supermarché et chez tous nos distributeurs au Royal Burundi. Golden Express. Johnny Star Vicky Collection, Galia, le Pop Shop, Fadia, Amaka, Mouskalaf, Ara. Yes, habillement di grossistes ci ay tenues africaines à diaspora def leen seen commande nous livrer leen ko par DHL le numéro bi 77 774 09 71. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond-point EMG pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.héritagecouture.net. By HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. دم خيون خم خم يكتما جو كيف سوري يا كاجي تنما ما يتخدي دم من يودان الما ما يباك جوك من بانتا يما وتما اليوم نعقل النما فما ما ندوقو سيطان تقما جلسة ملاخو قريا لوالما

ci yenn rafet yi moom dañ koo war a tere mais Mathieu gis naa ko nag muy wax ak sa papa. pare que dañoo xamante ne. xam naa kii yow xaritam la. Hmm. rek lii de le gars il est marié. Hmm. ma chérie être marié avoir des maîtresses c'est vrai man damaa waxul loolu sax yéen vous avez remarqué si soirée bi ay paa ñoo fa nekkoon te ñoom ñëpp ku si nekk xale bu ndaw nga àndal comme ko ànd ak seen ay doom. ah bon hmm, remarqué ko sax. foofu day màggatum kooba rek a fa nekkoon. en tout cas j'ai senti quelque chose de louche. waaye lan ngeen di xaar pour ñëw ndékki. nekk fi di kaare. kaw leen. mën dem man sangoogu ma de. mais ana Alice. mu ngi sangu pareegul. waaw ah, man maa ngi ñëw. dem. mati jaaxal mais gis nga xalé bi ni mo man demb. en plus devant tout le monde cela dépasse de loin de tout ce qu'il a pu faire jusque-là xam fuma ma jëm ak yi mon cœur tu n'as pas besoin d'être tout le temps derrière leur dos Mati ak Beydi ay magum jëm lañu danga leen wara bay ñu jël seen ay responsabilités def seen ay choix suñ paree nag luñ ci góobee gar ko. je suis pas d'accord avec toi on parle de mes enfants quand même sama ay d'homme lañu c'est pas parce que dëkkatuma ak ñoom que li ñuy def ak lu ñuy dul def duma ko lijjanti au contraire et puis Mati yoon bu mu nekk ni baaxul lu mu def dañ naan doomi diw la sama réputation lay yàq pourquoi tu décroches pas. Euh, c'est c'est sûrement Daisy xam nga moom daf may rey ak wax. Bonjour soda Anissa, sama yére bi euh, Ming sama sac dama ko bëgg ko après ma non ko sama Soda madame Taylor jox sa robe de je ko sax désolée c'est ça tu la mettras sur mon lit soo de xaw ma lu mu la wax mais bu ko faale nii la mel dafa fii rek parce que yaa ko dàkk dama nga ndékki gaaw sa copine dañu fokkalee day jeex de. Euh, ana madame la euh, dafa génn. Bonjour, professeur. J'espère que vous vous êtes bien reposé. Je ne suis pas là pour parler de mon état. Vous m'avez beaucoup déçu, Dalanda. Il me semblait qu'on avait un accord. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas prendre le risque de créer mon business sans être sûre que Linda accepterait. C'est une fille innocente et encore très naïve..! Si vous voulez obtenir ce que vous voulez, il va falloir faire preuve de délicatesse et de patience. Hum. Aucune fille ne résiste à une grosse somme d'argent, ça tu le sais. Alors épargne-moi ces formalités, Linda. Toutes les filles ne sont pas pareilles, professeur. Il va falloir qu'on trouve une stratégie pour convaincre Linda. Elle a une grande admiration pour vous. On va s'en servir. Faites tout pour la séduire. Et moi, je ferai ce qu'il faut pour la pousser dans vos bras. Pourquoi pas L'attente et l'effort pour attraper le poisson font partie aussi du plaisir du pêcheur. <laughs> Et au fait, je tenais à vous remercier pour les donations. Grâce à vous tous, la Fondation a su lever beaucoup de fonds. Légit pour rattraper son échec avec Linda je me l'a proposer qu'une des filles vienne passer la soirée avec vous qu'en dites-vous je m'en contenterai parfait salaamaaleykum. Bonjour papa. papa. ça va fiston. Mbaye noo def. Ma ngi ci da fam lo soxla won ba nga Mati. lu bi papa Mati dëkkatul fi de depuis bu ah bon. ah d'accord je comprends maintenant. kon xale bi dafa liberté. di heure bu ko neex. Mbaye lu tax yow do sax ruus bi mat jógee ci kër gi ba ngay yoxos yoxosi nan ma ana mat kon tay la lay soga intéressé fi sa dom nek <laughs> xam nga lal man ñëw fi pour xulo dama gis numa ma jaaxal moo ma ñew pour lijeenti ko waye xam nga ne heure bi sama liggéey man na ma sekk soxla est ce que xam nga mati lu mu nekk di def di taxawaalu guddi di anak ak ay goor yo ne nañ ko bay di yak boppam lan papa Agresif mo la jox yeb permettre mo la ngay ñew fi ba ci biir kër gi di yàq deru ci sama kanamu yaay ñun bu ñu nekk ci ban école di réenté fan nga li jenti woñu faale woñu tay nak la mo gën xaalis bi nga xam joxé ko won wéri passé nga joxé ko une bonne fois nga fayaale jangou cheikh et eh, xam nga la la ne me parle pas comme ça du sa borom sinon ma non rien du tout do ko def dara deug kaani la sa dom de la wax deug ay atangi ni nga tok xamoo ci lu ñu kanta mati nag mom dama bëgg nga bàyyi ko tout tranquille mati li muy def ci kër gi xaj xajaat ba defoo ko fi sama dom, yar naa ko fi mako wara a yare fi muy tek tankam ak ñi muy andal xam ko yow ya wara a jënd sa bop amu ben fula. gis nga yow ma ngi soga a confiance bima placé won ci yow pour nga yaral ma sama domi, tek len ci yoon bu baax ndeke mu soko mérité ak sama ay dom lu leen neex neex na la ya gëna xam nga ne li du ben yar. wa d'accord yaruma leen waaye man au moins maa ngi toog ci seen wet abandonné wu ma leen xale yi nag bu ñu dévier woon sax ñu mën leen a comprendre ndax yor baay bu mel ni yow fàtte leen lijjanti woo leen calculer woo leen ci dara ndax jigéen. buñ ci muccee sax ñu war a sant ma pend boo toogoon sa place def li la war kon tey dootoo fi naan ma anamati man na dama bëgg nga may ma jàmm fu ma la paix j'en ai marre ci yow dégg li ma wax point d'accord vas-y du nii nga nekk ak man continue de cracher ton venin sur moi su ma waxee benn nga ne fukk jël sama ay doom détourne leen contre man

saya saya aku dakale ko <laughs> wa man baxna man luma am jël yéen ñaar moom xajuma seen kan digënté mom to gisé kër gi contane nga. macha allah neex j'adore. Iya, merci en tout cas lii bi yaa ko waral kontaan trop. tu m'as soutenu tu m'as aidé. merci pour tout. yalla yalla yàlla fay la. waa papa. amati wala papa mama. Bi di yow. del waxo waxu xale. Del ma di ma tijji kër gi. merci beaucoup. ok. Adja tout le monde à l'intérieur. am na jëf xam ni nettali ko daal du neex am na jëf yoo xam ni daal ñàkk pexe baawe nguur a ne ko welaani kam waaye ni am ci li fii démb moom waaye démb gis ngeen فيتش فاطمة تاي من دمون مكومة eu mă îndemă te la def și bucur am anțat dumă dem. Râs mă că de mese dimaș. Mande, am un nacur uai, halat mă o să ne cran mai dem. Dumă rai să mă vop. Mm, Bete că dăm cu cum de obicei. Wa târc. Wa chimăm fumnecă. Linda? Mm. Pourtant, je me suis bien reposée. maa forme confortable na sama je me suis bien reposée en tout cas. mooy defar sa yaram de. yow démb rek xale góor ni la doon xoolee. Ma petite sax man ni ngay dagu num la nexé nak teg ci. may na la dé. Mhm. Mo, de quoi tu parles? Linda, oh, Linda, t'es pas fatiguée de tout le temps faire ta naïve aussi. Personne ici ne va croire que tu n'as rien remarqué.

Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est quoi tout ça Les loups Attends, on se coller. Je sais pas, il y a pas euh, j'ai un cocktail ce soir avec des amis professeurs. L'un d'eux travaille euh, dans la prestigieuse université suisse dont nous avons hier soir. Ah, ah, j'ai pensé à toi et je pensais que ça te ferait plaisir de les rencontrer. Alors j'aimerais que tu t'habilles dans euh, la circonstance. ne connaissant pas tes goûts, je t'ai envoyé plusieurs tenues je sont toutes à toi, celle que tu préfères et garde euh, D'accord, je. Euh, mon chauffeur passera te prendre à 19h. À ce soir. Tu vas faire un malheur dans cette tenue. Tu seras super canon même. Qui t'a offert ça Professeur Joe. Professeur Job. C'est qui lui daa am na sugar daj. ci tel nga appliqué samay conseil nag yow ñëwagoo sax ñu lay Mais may lu ngeen a foog yow tamit. que daf ma invité juste benn soirée cocktail avec ses amis c'est ça. tu l'appelles, tu lui dis que tu peux pas accepter ses cadeaux. Ok. Que tu peux pas sortir ce soir. Quoi? Mais pourquoi? yow Fatmata rabat joie nga de. tu l'appelles. xoolal Linda. Qui bul ko déglu tànnal ci robe robe bu toog nga daal di ko sol falaale kii make up sans pression mais arrête. Le li nga fogg dé ki daf ma invité juste parce que dama demande conférence ñu nek fofu di wax ci ben université bu nek Suisse mu ne daf may présenter ben xaritam bu nek foofu c'est juste ça <gasps> mais quelle naïve aussi tu fais ma chérie on est à Dakar dès il va falloir te réveiller Enfin bref, si tu veux pas y aller, euh, donne-moi tout ça. Je me ferai un plaisir d'y aller à ta place. Hein. Banane, Nanda, qu'est-ce qui te dérange cette invitation Anna, professeur Job, tu as Madame Taylor Ou tu femme l'on Même pas ça. Mais bon, Linda, je la fait pas franchement. En plus, Nyarion, qu'est-ce qu'elle fait d'elle Allô Elle ne le connaît même pas. Tu l'appelles votre série revient après la pub. Alib, le goût naturel du lait. Pour des moments de douceur, de plaisir et de convivialité, emportez-le avec vous, Thé Flécha, le meilleur du thé. Tangal Bégé, Moni Bégal. Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie bees grossistes di grossiste ci ay tenues africaines à diaspora def commande nous livrer ko par DHL numéro bi 77 774 09 71. By HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. Showroom Héritage Couture à la zone de captage EMG pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.héritagecouture.net. You now gonna petit it. What is Yo, donne-moi Yak bega, yo donne sauvage. Ça va? Ça va, et toi? Non, non, non, ça. Non, Devine qui est venu aujourd'hui à la maison. Ton cher papa. Encore. Ramagan accueillir Canas comme d'habitude. Accueillir. Il m'a trop énervé aujourd'hui. Il s'est permis de dire que ouais, toujours à la dévergondée partout à Dakar. Sérieusement Mais qui, pour qui est-ce qu'il se prend faale moi pendant des années et là il se permet de ñëw si sama yaay pour yàq sama der. en tout cas tu sors avec des gens qui font trois fois ton âge La moo tax muy wax loolu. Baydi faut pas prêter foi à ce qu'il raconte moom xam nga ko lépp lay exagéré te lu mu blâmer maa rek lay wut man je suis une grande fille j'étais juste sortie avec sama benn xarit moo gis ko bëgg ko def problème yow xam nga man du ma la dara mais ah moi, je pourrais pas lui expliquer ça du mën a comprendre mais maintenant tamit nit la c'est normal que je sorte des fois. man bañu ma loolu Mathieu, da nga war a nga tu n'as que 19 ans xam ne génn ngay génn ni su fekkoon kër ga la sama yaay du ko nangu même moi j'ai des difficultés pour sortir sama yaay am si confiance Moi, tax mu bàyyi nga dëkk wetu université te xam ne bu dul man elle n'allait pas accepter donc fais gaffe jël naa sa défense sama kanamu pap Ouais, tu as tort aussi te da donc koy may lu mu wax sama rek donc voilà quoi. écoute je suis désolée mais en vrai je faisais rien de mal. Mati man je te connais très bien xam naa ni nga sañ tu es ma jumelle man góor ci bopam la laa wóoluwul. ne t'inquiète pas. ah oui tu penses pas que tu devrais revenir à la maison. dellu si béy de yow ngi dégg li ngay wax loolu à limite sax ma bàyyi jàng moo koy gënal di jóge mbaw chaque jour pour ñëw jang si université lool c'est impossible pour moi. waaye man xanaa du loolu def tous les jours. man ak yow duñu benn yow goor nga te franchement je vais pas cracher sur une possibilité de vivre proche de l'université pour presque rien du tout de maquiller des gens gagner un peu de sous juste pour assurer un faux père quand même du mon ko

kono sate ki tonjung ma mo ta fitu de holande mo sai la murugol ah wawa goy ci mo wawa kono joddi ma do kono hin don sonka hin don morni o oh, wada ta doy neno yande ko buyo metti murugol do wani mariama bela morata mo ah. fe nay tum ugi no seda ah. nene nene linda addani en 100000 sefa Il a dit 100 000 Céphani. Quand Linda a eu 100 000 Céphani? Bonne question. Hmm? Nous disons, nous aussi fantôme, nous voulons. Bon, d'après l'eyeliner, j'ai appris. D'après le mascara, mon gars, c'est simple c'était juste pour voir ne t'inquiète pas Je ma la le up. ëpp xanaa gisoo ce que la defal démb du yem ak tey démb soirée la woon te cocktail je vais te faire un truc super simple ne t'inquiète pas xoogal rek xaar ba pare Allô, Banna C'est pas Banna, c'est moi. Où tu as eu tout cet argent-là Ah, Kumbuni de Maruno Savigoleande. Tout cet l'argent là est tu viens juste de commencer. Ma nouvelle patronne, elle est très généreuse. Hima waliti moja. Ah bon? Mba jarama. Ono moƴƴi on. Ei eh, an weltanike mo. Allah yoɓmo ko ɓuri e Je suis tellement fière de toi pour ton courage. E miɗo anndi nyande heɓuɗa fuu a d'accord d' nene salut bana de ma part awa jarama boba on allah waɗu barkema noon bisou ça va ouais c'était ma mère hmm. I'm guessing it's about too much. Ninguém é bem de maquiagem. Maybe. Estou a ver. Oh, no lindai. koye golleji makko ɗiɗi ɗi o woni gollude ɗen ko ɗum o heɓi mbuɗɗi Ah! o o o elle trouve du temps à étudier avec tout ça. D'ailleurs, honto woni fenɗo ɗo konto falɗa yo wono himo ka yaya makko kaka yaya makko dabba o woni hmm? Ça. qu'est-ce que tu fais ici Comment ça C'est à moi de te poser la question. nga annulé rendez-vous parce que tu te sens pas bien Mais pour tu sors tu peux m'expliquer ça je suis désolée Nous peux pas expliquer en fait professeur Diop est invité pour présenté ma benn am et c'est super important. ban professeur Diop. yow kañ nga déggante waat ak professeur Diop ba mu lay invité. Linda mënoon nga fen ñëpp ba mu des man ni nga solo nii ku ko gis xam ni feebaroo. écoute professeur Diop daf ma invité c'est super important bu ma ñëwee dinaa la expliquer waat. instant bi chauffeur bi man rek lay xaar dinaa la woo de Cũng là ba. Alo? Tante ba. Kumin banna, accu hakke dai. Milon ku ada Linda, mboka suudu. Kan, Linda? <laughs> Linda da aku sama ker. woodi yam lamin o rewe lamin tan ndekete yo linda nana caggal lamin tan linda ko bandi linda wana pewɗo wana ɓiɗɗo pewɗo ndeke haalana yumma ndeke linda lima ko ɗon gërëm di ko sant di ko waxal lu baax ndeke xale bi kaca maala maa ka dak ca xaj dootu ko defati goy mimino mari golle de nene nene nene nene hendike tan daba o inni linda e wino ka maɓɓe honɗum ehe gilan o nangimo kanko e modi makko ga nder suudu o raddike mo daɗi nene ari walla ala nene waɗe doy waɗe doy waɗe doy waɗe doy Yeah. waɗeede waɗi waɗi banno addu ndiyan addu koye ndiyan nene nene nene doggu koye tinno koye banna xam ni nettali ko daal du neex am na jëf yoo xam ni daal ñàkk pexe bare nguuran mi ko welaani kam waaye ni allah hen seere ndalu ne dañ naa ko ngi ñoom yàlla bañ ne du antu man waaru kama yo peli ko pasal wadi mini mangi rero man na ye ko pasal wadi mini kutena masero man waruna yeah nyaka mayo peli ko pasal wadi mini mangi rero man na ye ko pasal wadi mini kutena masero demona pay wax li am Buri yàlla moo ko séedee li may dund nii neexuma waaye yow ma ci pexe nekk ak samay rakk yu jigéen ñuy dund naka sudul noonu te mënu ma ci wax naada ndax jotul gannaaw sama loxo adduna ko bele jeri dunya ko mere mere adduna ko muñal shida for blessing. Guranne ka welani kam wayeni Allah hense. Ndalune tanya kunginyom yalla banyetu antu. Manwaruna ye nyaka mayo beliko pasal wadi minimangi. Je vous suis vraiment reconnaissante de m'avoir présenté à vos collègues. J'ai passé une excellente soirée. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tu sauras me remercier, chère Linda. Et tu verras, tu apprécieras plus la prochaine fois. Comment ça, la prochaine fois Je t'apprécie beaucoup, Lena. J'ai envie de t'aider à changer de vie, à obtenir tout ce que tu as toujours désiré. Je te souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci. très bien. Marodi TV, votre visibilité garantie avec une communauté de 4 600 d'abonnés. Sorry, odanın ma may bakacak banta yema lima fikis jahalna ma kaitem nyunyo kala sama yon mi mum disna sama chono bakanya sama chono bakanya Otumalı yomba nyakalarına ma Fumamana dugu seytane tapma جلسة ملخوقني يلا والما باقي فتر منو يتما بقوم اسعكم بقوم